alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai walmursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki jullit yi maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp ragal yàlla subhaanahu wa taala ak di ko fuglu fu nekk di leen dénk di dénk sama bopp itam ñu gën a jox téereb yàlla bi subhaanahu wa taala gëddaam muy alquranul karim téere bu màgg boobu nga xam ne moom la yàlla subhaanahu wa taala wàcce mu nekk yërmaane njël mi def yépp nekk euh, luy wéewanal mbirum nit ñëpp yàlla subhanahu wa taala def ci lépp loo xam ne luy texeel jaamam ñi la képp koo xam ne topp nga téeram bi suñu borom subhanahu wa taala dana la ci réer dana la musal ci texee di waaye képp koo xam ne itam dëddu nga bi danga yàlla subhanahu wa dana la nattoo dund gu métti gu xat donte am nga àdduna ak lu ci biiram ndaxte kenn mënta am ak texe lu dul ci alquranul karim waaye képp koo xam ne dëddu nga alquran lépp loo xam ne texee di la ñeel la sun borom subhanahu wa taala wax na loolu ci alquran ne taaha ma anzala anzalna alayka alqurana li tashqa wàcce wuñ ci yow alquran yow muhammad sallallahu alayhi wa ngir nga texee di waaye dañ koo wàcce ngir nga texe kon alquranu karim téereb texe la téereb njubla la téereb gindeeku la téereb yéwénal mbirum doomu aadama la fii ci seen àdduna ak ëllëg seen alaxira suñ borom subhanahu tam wax ci ne téere bii di alquranul karim day jubale day bijje jëme ci lépp loo xam ne mooy li gën li gën ci doomu aadama yi fii ci seen àdduna ak ëllëg alaxira suñ borom tam ne téere bii dafay bégal jullit ñi nga xam ne ñoo ko topp di def lu baax ci ne ëllëg suñ borom subhanahu wa taala dina leen euh, bindal yool bu rëy rëy kon alquranul karim téere la boo xam ne dañ ko war a jàng xam li ci nekk jëfe ko ngir ñu mën a am ak njub mën a am texe fii ci àdduna am ko ëllëg itam alaxira te bu fekkoon jàng nañ ko xam li ci nekk jëfe ko duutuñ soxlaa beneen théorie wala beneen euh, xam-xam boo xam ne bu ñu sàkkoo la wala ñu fay taamoo loo xam ne luy taxeel nit ki la moo tax suñu borom wax ci alquran awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim xanaa doyu leen ne man wàcc naa ci ñoom ab téere muy téere bi gën ci téere yi ñu koy jàng ci ñoom kon kay li ci des mooy ñu jéem a góorgóorlu ci jàng xam li ñuy tekki ba noppi jëfi ko kon lépp loo xam ne texeek àdduna la ak goog alaaxira suñu borom subhanahu wa taala dëxëñ na ko ci alquranul karim lépp loo xam ne itam luy texee di nit la ci àdduna wala ci alaxira suñu borom subhanahu wa taala tere nañu ko te itam xamal nañu ko ci alquranul karim ngir ñu maytu ko mbokki jullit yi alquranul karim téere bu màgg la boo xam ne dafa yittoo wàllu jukko wàllu melokaan moo tax euh, boo koy jàng li muy njëkk def bu fekkee jàng nga ko ni nga ko war a jànge dégg ko ni nga ko war a déggee xam li nga xam ne moo ci nekk ci ay àtte li muy njëkk def mooy dafay dëgëral sa relation ak sa borom day dëgëral relation doomu aadama ak boroomam ndax téere la boo xam ne dalay xamal kan mooy sa borom dalay xamal kenn mooy la bind lu tax mu bind la lan moo tax mu bind la lan mooy tax suñu borom subhanahu wa bind ñu wàcc ci kaw suuf bind ñu rek ngir ñuy lekk naan comme bàyyi may waa daf ñoo bind ngir mbir mu rëy loolu nag ngir nga xam ko foo jaar jàng alquran karim xam ko xam li tax suñu borom subhanahu wa taala bind ñu dalay xamal tam kan sa borom bu màgg boobu nga xam ne moo la bind xamal la turam yu màgg yu rafet yee xamal la kaanam yu kawee yi nga xam ne nuróowu ko kenn ci kenn nuróowu ko moom subhanahu wa taala xamal laa tam màggaayu suñu borom subhanahu wa taala akub matam subhanahu wa taala xamal ne moom rek mooy ki nga xam ne moom lañ war a waru ñoo jaamu keneen ci dëgg ku dul moom xamal laa tam ne lépp loo xam ne ak jaamu la yàlla rek moo ko yeyoo te dañ ko war a sellalal yooyu yëpp ci alquranu karim lañ ko mën a xamee ci leen i xamee tam ne nit ki lu mu war a def da ko war a sellal ngir jëmi yàlla ji subhanahu taala alquranu karim tam daf ñuy jàngal ne moom suñu borom subhanahu wa taala rek mooy aji atte ji mooy ki nga xam ne tam ak atteem moo gën a maanu ci atte yi te moom moo ko yeyoo moo tax lépp luy atte jaam ñi lu leen di yéwénal ca nekk ci maanute mi ngi ci alquranul karim bépp atte bu sàkkoo faneen fu dul alquranul karim nan xam ne maanute gi dana des du am nam war a amee waaye alquranul karim lépp luy maanu mi ngi ci biir lépp loo xam ne lu lu lu juuneeg maandu maandute la sori na ko moo tax suñu borom wax ne inil xukmu illa lillah àtte dëgg daal yàlla moo ko yeeyoo moo tax mu ne bu leen jaamu keneen ku dul moom te loolu mooy diine ji nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala digle waaye li ëpp ci nit ñi nag xamul loolu alquranul karim boo ko jàngee am na jeexital bu rëy rëy bu muy def ci xol yi jeexital boobu suñu borom subhanahu wa taala leeral na misaalam ci alquran nee na alquran bu fekkoon dañ ko wàcce ci montagne bu rëy montagne bi day daanu bu fekkoon dañ ko wàcc ci alquran dañoo wàcc alquran karim ci montagne te montagne bi xam li alquran di wax montagne bi day soppali ko pënd ndax jeexital ba muy jeexitalu ci maanaa yu rëy yooyu xoolal montagne ni mu rëy ak ni mu diise ak ni mu dëgëre te attanul alquranu karim ak jeexitalam lu tax ñu koy jàng kon ci kaw ci ci ci jaami yàlla yi ba bëccëg ñuy wax ne ay julli leen ca di def ci ñoom benn jeexital kon loolu nekkul ci alquran waaye mi ngi nekk ci ñi koy déglu ña koy déglu ñoo am ay feebar yu nekk ci seeni xol ba te ñu mën a jeexitalu ci alquranu karim ni ñu ci war a jeexitalu waaye bu fekkoon seen xol yooyu set na wecc mel ne euh, doj woowee wala xeer woowee nga xam ne lépp bàkkaar sori na ko lépp luy bokkaale sori na ko kon bu ci alquran karim wàccee dana jëf ci moom jeexital gu rëy rëy danañ gis julit julit buy dox dana nekk beneen mbir boo xam ne ku ko gis xam ne lii kii alquran karim moo jeexital ci moom moo tax mu mel nii kon ñi nga xam ne mënatuñoo mënuñoo jeexital ci alquran dañuy dégg alquran ci du yëngal dara ci ñoom du leen soññ ci dara du leen jàjj ci dara nan xoolaat seen bopp xam ne seen am nañ feebar yu leen dal ba tax mënuñoo euh, jeexitalu ci alquran yi ci war a jeexitaloo alquranul karim tam lépp loo xam ne yiw la ma ngi ciy gindee jëme ci moo xam yiw ah, yi rafet la wala jukkoy jëflante wala jaamu yàlla wala lépp loo xam ne ndikk da ko aajowoo ci àddunaam wala ëllëg ci àlaxiraam lépp loo xam ne lu rafet la ci jukko yàlla subhanahu wa taala diggal nañu ko ci alquran lépp loo xam ne jukko bu ñaaw la suñu borom subhanahu wa taala tere nañu ko tere nañu ko ci alquran moo tax bi benn borom xam-xam bu ñuy wax Saad ibnu Hisham ci bokk ci taabiun yi ñëwoon ci umul muminin Aïcha radiallahu anha di soxna si yonent bi di sun yaay ñun ñëpp yaay Aïcha radiallahu anha laaj ko ne nan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam melokaanoon lan moo nekkoon jukkay yonent bi alayhi salaatu wasalaam Aïcha daf leen a euh, tontu tontu bu gàtt boo xam ne làmboo na lépp yi jukkay yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana leen jukkay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo nekkoon alquranul karim xanaa jàngoo yàlla naan wa innaka la ala xuluqin azim yow ya yow yonent bi yaa ngi nekk si gën a kawe ci jukko yu rafet foofu la ko yonent bi foofu la ko suñu borom subhanahu wa taala tagg li mu ko taggee mooy jukko yu mat yu rafet mu nekkoon alquranu karim moo nekkoon jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko tontoo loolu saad ak déggub diineem nee na laajatuma ko beneen laaj ndax xam naa ne kon lépp lu ma bëgg a laaj ay détails rek su ma dellu ci alquran xam ne loolu euh, mooy jukko yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon alquranul karim moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pratique ci dundam moom ci ni mu daan jëflante ci ni mu daan dundoo ci ni mu doon jaamoo yàlla kon dafa mel ne dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo nu leeralal nan la al naka la ab jullit bi nga xam ne dafay jofe jëfe alquran ni mu war a mel dëgg noo gën a jege yonent bi sallallahu alayhi ci roy ko ci topp ko ci defe ay ndigam bàyyi ay xamal ne yaa ngi ci jukkee alquranul karim moo tax boroom xam-xam yi ne wa innaka la ala xuluqin azim li muy firi mooy yow yaa gën a mat ñëpp diine yaa gën a ñëpp diine ndax xuluq muy jukko muy diine mbokki jullit ji fan yi jàll ñun ñëpp dégg nañ li nga xam ne moo xew ci euh, presse bi ci wax yu bëree bëree bëri yu jëmale ci jàngalekat alquran yi ak daara yi nga xam ne ñooy jàngale alquranu karim ñu ubbi lii ñi ñu bëree bëri wax ci ku nekk wax ci ku mën a wax ak ku mënta wax ku war a wax ak ku wërta wax waaye loolu dafay yóbbuwaat daf ñuy euh, euh, day tax ñu war a góorgóorluwaat ci leeral kan mooy jàngalekatub alquran bi nga xam ne ñun moom lañ bëgg mu yaral ñu suñu doom jàngalal ñu suñu doom alquranul karim loolu lu mat a xam la ndaxte ki nga xam ne mooy jàngale alquranul karim euh, dafa am melokaan yoo xam ne daf ko war a melokaanoo te loolu mooy li nga xam ne ñun moom lan gëm te ci la ñuy góorgóorlu seen kamtalaay kàttan mbooleem daara yi nga xam ne moom lan xam di jëflanteeg ñoom dañuy xër ci jàngalekat ba nga ba fay jàngale euh, góorgóorlu ci melokaan yoo xam ne bu ko amee bu soobee yàlla dana ko sàmm ba yu bëree bëree bëri du ko mën a def ndaxte alquran karim dana ko sàmm melokaan yooyu nga xam ne moom la melokaanoo mu nekk melokaani alquran karim dana ko sàmm ba ah, moom ci boppam ku ko gis xam ne nit ku baax a ngi nii ñamuy yar tam ku leen gis xam ne nit ñu baax a nii ñu ni yar ñoo xam ne bu màggee danañ mën a jëriñ seenu société danañ mën a jëriñ tam li nga xam ne mooy seenu xeet bi njëkk ci melokaan yooyu mooy am pas-pas bu baax ndax nit ki bu amul pas-pas bu baax du am ah, volonté def dara ndaxte du am dara lu muy yaakaar ca loolee nga xam ne moom lay def waaye bu fekkee nit ki dafa am pas-pas bu baax bu dëppoo pas-pas su salaf saalih sori lépp loo xam ne bidaa la na xam ne mi ngi ci xéewal gu rëy a rëy te itam loolu dana ko gën a poussé ci mu góorgóorlu ci mission bi nga xam ne moom lay euh, joxe di jàngal alquranul karim téere boobu nga xam ne mooy téereb njub di téere téereb texe aw xeetam ak ñi nga xam ne ñooy euh, ndaw ñi kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ njëkk a séntu ci nga xam ne mooy jàngal alquran mu melokaanoowu ñaareel melokaan bi mooy sellal muy sellal yéeneem ndaxte jàngaleem alquranul karim dafa nekk ak jaamu yàlla nekkul rek métier waaye jaamu yàlla la mi ngi bokk sax ci jaamu yàlla yi gën a mag ci jaamu yàlla yi ba lenn ci borom xam yi sax nee nañ moo gën jihaad fi sabilillah nee nañ jàngale alquran toog di jàngal nit ñi alquranul karim moo gën jihaad fi sabilillah te abu usman an nahdi nga xam ne ci taabi'un yu mag yi la nee na bi mu déggee ci usman bin affan radiyallahu anhu mu wax ko ne ko yonente bi sallallahu alayhi nee na ki gën ci nit ñi mooy ki jàng mooy ki mokkal alquran di ko jàng Euh, jàng ko ba nag di ko jàngalewaat nee ci la bàyyi la mu doon def lépp euh, daal di dem ubbi daaraam di jàngale alquran nee na toog naa ci loolu juróom-ñaar fukki at yoo xam ne defuma ma la leen lu jàng alquran moo moo tax ñi nga xam ne dañ koy jàngale ci ci dëgg ca nekk ci waa alquran boo leen gisee ñooy ñi gën a dal nit ñi ñooy dañuy bokk ci ñi gën a dal xel ci nit ñi ñi ci gën a jege yàlla subhanahu wa taala ñi ci ëpp leer ñu ci ëpp itam tawfiq ci euh, ci seenug dund kon sellal yéene ji lu am solo la bañ xool yi nga xam ne moom la nit ñi wax bañ a bàyyi xel àdduna lu bëree bëri ndaxte yaa tànnal sa bopp yoon woowu te yoon woowu ku ci jaar da xam ne jaamu yàlla la da nga war a sellalal sa cee war a sellal sa yéene te nit ki lu mu gën a sellal yéeneem rek ci ba bunt boobu suñu borom subhanahu wa taala gën ko defal tawfiq gën ko musal tam ci loo xam ne day gaar aw yoonam ba du mën a egg fa xam ne fa la bëgg a egg moo tax Muhammad ibn Wasi ci eh, taabiyoon yi la nee na nit ki bu fekkee dafa jël xolam bépp wékku ci yàlla yàlla day jël xooli doomu aadama yi jëmale ko ci moom Ah, ñetteelu melokaan bi bi nga xam ne moom lañ séentu ci ki ñu jàngale alquranul karim mu war ne mel mooy mu am diine ju mat sëkk ca dëggu ci loolu ndaxte kat am diine lu am solo la ci bunt bi bu nu demee bay dégg ñoo xam ne dañuy wax ne dañuy jàngale alquran ba ñu leen di tuumaal yeneen melokaan mooy wane ne kooku dafay mbubbe woo jàngale alquran waaye nekkul koo xam ne ku yeyoo mécc mu tedd moomu la moo tax suñu borom subhanahu wa taala tag ñi nga xam dañuy jàng alquran dëgg-dëgg jàng mu ne alladina aataynaahum alkitaaba yatluunahu laa tilaawati ñi nga xam ni defal naa leen xéewal ba nekk ci waa al ban bokk ci ñi wattu alquranul karim di ko jàng guddeeg bëccëg ñooñu dañuy topp alquran ca dëgg dëgg dëgg dëggu topp lépp la alquran digle moom la ñuy def lépp lu mu tere dañ koy bàyyi da leen di gis ñu farlu lool ci seen diine comme ni ko boroom xam-xam yi waxee Abdullah ibn Mas'ud mi ngi naan ki mokkal alquran dañ ko war a xam ci guddeem bu fekkee nit ñi ngi nelaw maanaam wërte nelaw guddi gi yëpp war naa am diggante boo xam ne daf ciy jóg di naafilal yàlla subhanahu wa taala dañ ko war a xam itam ci bëccëgam bu fekkee nit ñi ñu ngi lekk war naa am ay fees yoo xam ne moom du ko lekk da koy mu nekk weer woori ngàtt nga yoo xam ne daf ci góorgóorlu ngir li ko yàlla subhanahu wa baax ak li ko xéwale ci xéwale ko ñu bëree bëri ci ay jaamam dañ ko war a xam itam ci fogoom ak moytanikoom bu fekkee nit ñi ñoom foguwun moytanikuwun xanaa lu leen neex def dañ ko war a xam itam ci ak waayefam bu fekkee nit ñi ngi tiitaroo àdduna ak euh, poñetum àdduna dañ ko war a xam ci ak dalam akuk ñàkk euh, euh, maanaam ëppalem bu fekkee nit ñoom ñi ngi xàqtaay ak ree kon loolu mooy melokaan yi nga xam ne moom la Abdullah ibn Mas'ud saxaaba bu mag boobu wax ci ne ne mooy melokaan ki nga xam ne dafa dafa mokkal alquran di ko jàngale noonu la war a mel kon loolu lim ñuy jàngal comme ni ko borom xam-xam bi ni wax waxee nee dafay tegtale ne ki nga xam ne dafa mokkal alquran dafa war a am melokaan yi ko wuteleeg ñi nga xam ne mokkaloon alquran ndaxte suñu borom subhanahu wa taala da koo xamal lu mu xamalul ñëpp kon nag loolu da ko war a da dafa war a feeñ ci melokaanam war a feeñ ci ay jëfam ba ku ko gis xam ne kii am na lu ko yàlla subhanahu wa taala baaxe lu mu baaxewul ñëpp te loolu mooy mu teggnu ci teggnu alquran karim te eh, ak teggni sunna siyent bi alayhi salaatu wasalaam loolu moo taxoon Fadl ibn Iyaad daan wax naan alquran de suñu borom da koo wàcce ngir ñu jëfe ko waaye am na ñoo xam ne moom dañoo jàppe jàng ko ab liggéey la waaye dañ ko waaye du lu nu war a jëfe kon daal li mu bëgg a wax foofu mooy ne kiy jàngale alquran war naa góorgóorlu baax a baax ci diineem ñeenteelu melokaan bi mooy jukko ju rafet kiy jàngale alquran dafa war a rafet jukko ngir ñaari mbir mbir bu njëkk bi mooy moom dafa mokkal alquranul karim ci alquran comme ni ma ko waxee léegi ci ginnaaw lépp luy jukko ju rafet moom lay digle lépp luy jukko ju ñaaw moom la tere kon moom dafa war a mel ni nga xam ne moom la alquranul karim digle ndaxte moom mokkal ne ko ca xam ne li ci nekk lépp wala boog loolu lan jot ci moom ñaareel bi mooy moom dafa fas yéene jàngal nit ñi ci alquranul karim dafa war fas yéene dajale ay nit xale ak i mag ngir jàngal leen alquranul karim te xam ngeen ne loolu métti mu jafe la ndaxte jàngal koo xam ne xamul dara lu jafe la jaxasoog ay nit itam lu jafe la moo tax képp koo xam ne yaa ngi jaxasoog ay nit foo jaar di am ay coona yuy jóge ci nit ñooñu di la dal bu fekkee amoon ak muñ amoo jukko ju rafet loolu mën naa jeexital ci yow bu baax a baax ba na war a mel doon mel moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu yónnee Muaz ibnu Jabal Yaman ne ko demal ci Yaman nga jàngal leen boo demee tam nga xamal leen seen diine ca lam ko dénk bokk na ci mu ne ko wa xaaliqi naasa bi xuluqin xasan na nga jukkoo na nga melokaanoo ak nit ñi na nga yore jukko yu rafet ci ni nga jëflanteeg nit ñi ndaxte jëflanteeg nit ñi dafa ajoo jukko yu rafet rawatina ki nga xam ne day jàngale alquranu karim ki nga xam ne day jàngale téere bi yàlla bi ki nga xam ne day jàngale li nga xam ne mooy alquranul karim mbokki jullit yi képp koo xam ne daal yittewoo nga alquranul karim yaa ngi koy jàng nekk ab jullit war ngaa yitte wala war bàyyi waat xel nag ci njàngum alquran war ngaa bàyyi xel itam ci daara yi alquran yi nga xam ne moo samp ci suñu réew mi ci nu mu war a gën a yéwéne ba xale yi mën faa jàng alquranul karim nan war a jànge nan fa war a jànge ñu am itam ay jàngalekat yoo xam ne ñu mati jàngalekat lan ba nga xam ne ah, Euh, li nga xam ne moom lañ séntu ci ñoom danañ ko gis ndax itam responsabilité bu rëy la leen li ci day dellu ci ñiy jàngale alquran leen lee itam dellu ci parents d'élèves yi ndaxte itam boo jëlee sa doom euh, yóbbu ko ci daara am na loolu ci war a la ci war loo xam ne war nga koo taxawu taxawu sa kéemtalaay kàttan ak ñeneen i ñeneen ñoo xam ne tam am nañ ci responsabilité ñoo ñëpp nañ jéem a xool kenn ku nekk jël responsabilité am def ko ba mat sëkk bu ko defee njàngaleem alquran continuer xale yi jàng ko xam ko jëfe ko mu nekk tam loo xam ne njëriñ lay doon ci suñ réew njëriñ lay doon tam ci suñu société insha allah taala bokk naa tam defe naa ci liy rafetal loolu buñ mënoon a fexe ba am benn kuréel boo xam ne ah, ñi koy jiite ñun xam la ci mokkal ak jàng ko ak ak jàngale ko am ci expérience ñu jiite ak kuréel boo xam ne dañuy saytu daaya alxuraanul karim di xàmmee yi nga xam ne ñooy daara yi yeyoo ñu tudde leen ay daara ñu bàyyi leen yi nga xam ne yooyu ñu tuddi leen ay daara bu fekkee dañoo manqué ay moyens wala dañoo manqué expérience ñu fexe ba egg ci bu fekkee nag ñu euh, ñu nar a naxaati rek lan wala ñoo xam ne dañoo bëgg a gàkkal deru ñuy jàngale alquran wala gàkkal deru jullit ñi ñu jéem a jël ñoom ay mesures yu wóor yoo xam ne lu mel noonu duutu amati ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala jàppale jullit ñi ba métier bi nga xam ne muy euh, jàngale alquranu karim lii nga xam ne mooy euh, daara yi nga xam ne taxawoon taxawu nan xeet wi ci euh, wàll gi yàlla subhanahu wa taala jàppale leen ba nekk daara yoo xam ne exemple lay doon ci jàngal nit ñi xamal leen seen diine xamal leen tam li nga xam ne mooy moom leen aadawoo aajowoo ci seen diine ak seen àdduna ibadallah inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima fa sallu wa sallimu rahimakum allahu ala imam alxafizin li xududillah almuxafizin ala taati illah muhammad ibni abdillah alayhi afdalu salati wa atamu taslim allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid warda allahuma an alxulafa irrachidin alaimati almahdiyin abi bakrin wa umara wa usmana wa ali warda allahuma an alsahabati ajmain wa an altabiina wa man tabiahum bi ihsanin ila yawm iddin wa anna maahum bimannika wa fadlika wa karimika wa ihsanika ya akrama alhakimin allahuma inna nasaluka bi asmaika alxusna وصفاتك العلى وبأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصلاح نفوسنا وهداية لنا وزكاء ورفعة وأن تجعلنا بمنه بمنك وكرمك وفضلك من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك allahuma inna nasaluka an tusliha lana diinana alladi huwa ismatu amrina wa an tusliha lana dunyaana allati fiha maashuna wa an tusliha lana axiratana allati ilayha maaduna wa an tajcal alxayaata ziyadatan lana fi kulli xayr walmawta raxatan lana min kulli shar allahuma ahdina li axsani alaxlaaq laa yahdi li axsaniha illa ant wasrif anna sayi'aha laa yasrifu anna sayi'aha illa ant wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin